bandal azbala wa bandal basmala wa bandal hamdala wa bandal awqala tuma salaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ala jamiil anbiyaa wal mursalin wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e, nuyoo bi nu koy jooyal ci kilifa kilifa yi mu di Cheikh Mouhamadul Mountakha jéggulu ci kàddu yi di jéggulu itam fukki fan yeeg benn ci novembre ñu ko doon feete wax dëgg yàlla mu doonoon victoire senegal Sénégal gi yëpp bu ku tedd ki jógee ci géej gi li tax ñu koy jéggulu nag mooy yëngu ba ak ndaw ñi ndax fi nu ko defee ci Daaru Manaan ci Touba doon ci sargal xalifa bi ñu ngi ciy sant bu baax di ci sant sëñ bi ñëpp bég nañ ci waaye nag dañuy bëgg incha allah buñ ko fekkee weete jàmm ñu koy defee njaareem wala yooyu ndax itam daal war ma ji waaw njaareem yaatu na te am na spirituel am temporel e, bu ñu seetloo ca virage ba ba demee ba ca virage ba fi fleuve bi daan jaar li féete si yoonu Touba loolu mooy spiritualité bi la féete na le ku na xam na ni au temps des colons l'administration française sénégalaise foofu la ñuy woon kon defe naa ne bu dellusee mën nañ koy defee njaareem ndax itam nag njaareem la yow woon ni kun fa yakunu bi bam sa chin mina rabbil habibi ilal abdil mahbubi tàmbalee ko kataba rabbi lahu anniya muhibbu li zikrihi wallahu kulliya yuhib ca la waxee madd liyal xaqul mu biinul xaqa ubil xiyaaral ulama araqa kon ginnaaw bu nu santee sëñ bi jéggu li itam yëngu-yëngu ba ak xerteeg ndaw ñi ba noppi nu war wax ak nag waa réew mi yépp bu ñuy wax ci ku tedd ki daanaka jërul ñu naan murit jarul ñu naan tijaan jarul ñu naan katolik ku tedd ki pour ñëpp la ngir irham jami alwara moo tax bu ñuy wax dañ naan sénégalais yi a sénégaliyuun wa sénégaliyiin góor ñeeg jigéen ñi si xaaran wa kibaaran ñëpp lañuy waxal ku tedd ki pour ñëpp la ñu bëgg rek ñëpp xam ni delloo si xel yi jot na sëkk ci Matlabul Fawzayni da ngeen Ibrahima Khalil Moustapha Hafsa waaw li mu développé fàttali Matlabul Fawzayni keroog ci bis bi ñu ngi koy sant di sant kilifa ya fa teew yëpp di sant ñi nga xam ne amoon nañ yéene te egsi di sant njiitul réew mi di sant wasiiru daaxiliya ministre de l'intérieur waaw cant day am cant yoo xamante ne bi bu jaaree ci kilifa ga ñëpp jot nañ ci spirituellement bu demee ci xalifa bi ñëpp jot nañ ci temporellement bu demee ci président bi ñëpp jot nañ ci loolu la ni woon mënuñu ko ñàkk bañ a gaaral ba noppi nag ñëw wax ci wetu temporel bi président bi ñu ngi koy ñaan mu wax ak ñi mu ko seqal ñu de ay responsable politique ñu xam ni réew mi fi ñu tollu laajul ay élection présidentielle li mu laaj mooy wax ak peuple bi référendum la laaj ba xam waa Sénégal nangu nañ projet de société ku tedd ki wala nanguwuñu ko na laaj Sénégal yi le réalisme africain une nouvelle doctrine, une nouvelle pensée tirée de l'enseignement de notre sauveur ici-bas et dans l'au-delà na ko laaj Sénégal yi nañu ko laaj Sénégal yi ba xam nangu nañ loolu bu ñu ko nangoo ñu def ay réformes changer constitution bi bu ñu ko nanguwul bu fekkente ne nee nañ élection yi ñu daan def rek ni ñu ko daan defee la ñu koy defee noonu on est prêt pour choisir un candidat boo xamante ni bi dafay accepter suñu projet de société pour ñu gagner élection yi dès le premier tour ndax Touba d'abord moo nu ñor wasalaam.